salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk internet RSTV ñu ngi fi nga xam ne mooy ko ñu Pape Bouba Diop ñëw andil leen fi seen émission Trace Town bi Prince ji borom mbir taas ak Firdaas ma toog ak samay yaay ñu fas yéene leen laaj li nga xam ne ni moom la yëg ba ñu gisee ndaw yi nga xam ne ñoo dëkk Tëngéej ñëw fi nga xam ne mooy HLM pour sargal Pape Bouba Diop ci suñu équipe nationale ba mu qualifié wee yaay aminte ñu ngi leen nuyu. fay di leen ñaanal yàlla gudd fan ko ànd ak wér li ngeen sumb yàlla ko yàlla suñu borom yeggale te yàlla may ñu ndam gi mu ñëw fii ndax Pape Bouba Diop bu ñuy wax si moom man sama xol dafay tooy ndax da nekk ci koñ bi ñu ñëpp ñu bokk ndee bokk baay li metti ki si des yëg na ki si des man su ma dee wax sama xol dafay tooy ndax keroog ba ma demee sa estati ba rek am na ci yëg-yëg boo xamante ne dama ne tey bu ko yaayam fekk wala papaam kon kenn waxatu ko waaye ñu bokkee ko sant suñu borom la tax na yàlla moom moo bind jaamam te ku matal da ngay dem ala kulli àlli waaye bàyyiwu fi defet bàyyiwu fi gàcce de ndam lu rëy la ñu fi bàyyil kon ndam li ñuy ñaan suñu njaboot gi ànd ndox ñun di ka def yàlla nañ si yàlla boole ñoom tamit ba ñu gën a ndamoo ba sa kaw sa kanam ndax Paa Bouba Diop yaayam njëkk a baax papaam na wasalika xale la nag waaye macha allah dafa teel a dee lañ koy. dëgg la ndeysaan yow tey dëgg la dëgg émission yi day bari bu ñuy wax ci moom yaa booy yow ñu laaj la yow lan nga ba nga gisee xale yëpp génn ñëw fii nii ndax Sénégal qualifié final ñoom ñëpp ñu ne dañ koy sargalee Pape Bouba Diop lan nga yëg keroog. salaamaaleykum maa nekk turam santam di wax na ne Pape Bouba Diop nag dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko yóbbu ko ca àdduna yi dem si ndaxte lu baax rek la doon def li mu fi defoon kenn fàttew ko bitu finance boobu ba léegi ni kenn du ko mës a bàyyi fu defet mukk mukk mukk dañ koy ñaanal yàlla mi nga xamante ne moo ko fi indi woon ba teg suñu si tekk fi mu def lu baax ñëpp xam ko wax dëgg yàlla ah ni ñi def na ne dañ koy tuddee coupe mondial bi Sénégal jël keroog macha allah macha allah loolu rafet na ndaxte keroog daf ñuy fàttali ba paa boobu dugalee bi ci France ba fii yëpp kenn xaju fi kenn xaju fi macha allah keroog loolu moo doon findeer fii. dëkk bi yëpp a ñëw fii si si si eh, monument bi ñëw HLM waaw ñu ñaanal nag Sénégal tamit yàlla na jël ndam li waaw yàlla na jël ndam li ñu indi ñu kubbi fii ba ñu feetal ko Pape Bouba Diop tamit liñ ko tuddee rëy na trop si suñu si ñun wax dëgg yàlla bu ñuy wax suñ moom sax du ñu xam lu ñuy wax tax euh, lu baax li mu fi doon def Pape Bouba day baax na ba dee bu muy dunde di def lu baax te bi mu deewee la ñuy gën a xam Pape Bouba Diop mooy kan waaw nañ ko ñaanal yàlla rek. yàlla yërëm ko oyofal suuf si kawam te coupe bi tamit yàlla na ñëw senegal ñun ñëpp ñu ngi koy bokk di ko ñaan. amiin gis nga dégg ngeen suñu yaay yi témoignage yi ñu wax ci Pape Bouba Diop dégg ngeen tamit mbégte contentement bi nit ñi di ressentir surtout ñi nga xam ne ñooy waa koñam nekkoon ay yaayam nekkoon ay magam yi tamit. nekkoon defaral ko témoignage yu baax yi nga xam ne mooy baax na ba dem yàlla na ko yàlla yërëm waaye dañ nekk tamit toujours ci koñ bi nga xam ne nii fi la Pape Bouba Diop màggee fii la yaroo yaay tey buñ la doon laaj kan mooy Pape Bouba Diop. Bouba de dama xam ci moom bari na parce que ñun yaayam moo ñu yar ñu jógee suñuy kër ñëw si si koñ bi yaayam ngem ma ñu boot ñu roggante ñu dara ñaawul Diop jox nañ ñu cër respecté na nit alalam boolewu kax kenn da daan def bu ñëwaan fii weer wu nekk saaku ceeb diwlin suukar dara manqué wul ci koñ bi ñun namuñu woon dara ndax teraanga di mu ñu doon defal Bouba mus ko attax yax kenn mësu ko wax benn heure regret xam na li ko war da koy def bëgg yaayam nag bëggaale ñun koñ bi ñëpp suñuy wax dañuy maasale koñ bi yëpp parce que ñun ñëpp benn lañ ci koñ bi kenn amul xar ma yàlla sama morom loo gis nit mu nekk ca yaa nga ca xale yi dóor waal ñàkk a tedd jariñu am na yàlla lafal leen ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñooy suñu yaay ñëwoon fii tey fii grand place bi fii lañ si fekk ñu papa Ndumbe ah ñu tegal ñu ataaya ñu ñëw war a waxtaan ak yéen ñu war leen tamit dalal suñu papa ji nga xam ne moom itam mu wax ñu ko ci nekk tamit ñoom ñëpp am nañ luñ ci wax ci lii nga xam ne nii mooy Sénégal bi mobilisé wu tëngeet ñëpp ñëw pour sargal bu Bouba Diop ñëpp yéene xool yi ba tàpp xool yi pour mu doon benn pour Sénégal jël ndam li yaa booy sa mot de la fin lan lay doon. Ah, coupe bi yàlla na ñëw Sénégal Sénégal gëj na am ndam yàlla nañu yàlla may ndam yàlla nañu yàlla may ndam amiin ñun ñëpp ñu bokk ko te bu mu am benn ay macha allah. macha allah macha allah ñëpp kontaan jërëjëf yaa booy ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi nii ah, toujours ci koñu Pape Bouba Diop ah tey plateau spécial ak jotaay grand place lañ koy def di waxtaan ak képp koo xam ne nii ci koñ bi nga nekk waaye tey ñu am plaisir dalal ki nga xam ne mooy suñu papa Alioune moom itam dëkk ci koñ bi ñu ah, bàyyi ko mu nuyoog mbokku internetu RSTV papa nañ lay nuyu. waaw kon euh, mbokku internetu RSTV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ok papa tey ñu laaj la keroog ba Bamba Dieng dugalee biiru Sénégal ñëw jubilé rendre ci hommage Pape Bouba Diop lan nga yëg. waaw keroog euh, bi mu ko defee ba pare nekk na geste boo xam ne geste bu symbolique la geste boo xam ne ñëpp dañ ko yëg mu nekk loo xam ne daf ñu fàttali delloo ñu 2002 le 31. juin ba Pape Bouba dugalee but bi contre la France ba mu dem di def set danse là foofu la ñu yóbbu alors mu nekk geste bu rafet mu nekk signe de reconnaissance ndax tamit defe naa Pape Bouba ji na Sénégal ji na Afrique ji na askanu football lu toll noonu. tey mm-hmm. papa tey bu ñu amaatee beneen question bu ñu lay laaj ñun mbokk euh, pour internetu RSTV yi day nekk euh, lan nga yëg ba nga gisee Sénégal gagné Burkina Faso ndaw Tëngéej yëpp génn ñëw fi dajale pour sargal Pape Bouba Diop lan nga yëg. Pape Bouba Diop fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare aljana vide bi nga xam ne bàyyi na ko fi. sunu borom ma mën na ko compenser yàlla na ko compenser alors euh, waa Tëngéej kenn amul seen pay waa Tëngéej kenn amul seen fay ñoom ñoo bëggal Pape Bouba seen bopp ba nga xam ne bés bi fi Pape Bouba nekkee ba dugaloon bii ba nit ñi ni ñu doon dawee di ñëw di jubal këram tey monde bu gën a bëri foule bu gën a bëri ñooy ñëw fii après les matchs pour célébrer la victoire des Lions fii si terrain Ndefane waa HLM yi tamit di nekk ay nit yu baax ay nit yu am coloré seen propre initiative ñu ériger benn mémoire fii benn mémorial benn monument fii si terrain Ndefane bi boo ngeen demee léegi di ngeen ko gis ñu jël ko déjee ko Pape Bouba Diop fi mu nekk nag képp kuy romb danga koy gis loolu moo tax victoire yi passé nit ci dañuy jóge ba jaxaay jóge sant yàlla jóge dàngu jóge jokkul moo tax yàlla nañu yàlla may coupe bi ñëw fi te bu coupe bi ñëwee ñu ngiy demande coupe bi ñu indil ñu ko ñu indil ñu ko fii si mémorialu Pape Bouba Diop waa Sénégal yëpp daje fi ñu célébrer ko. jërëjëf papa ñu ngi tamit toog ak ki nga xam ne nii suñu mag la di Baye Mbaye moom tamit nekk euh, ci koñ bi dëkk ci koñ bi waaye moom ndaw la boo xam ne nii ba mu nekkee ci koñ bi ba léegi ah, tànkam jugul ci guney koñ bi Baye Mbaye ñu nuyu la ziar la magu jàmbur. ñu leen nuyu bu baax euh, waa RFTV ñu ngi leen di bu baax di leen dalal si suñu koñ. Euh, Baye Mbaye yow lan nga yëg ba nga gisee ndaw HLM manko ndaw Tëngéej manko ñëpp génn di sargal Pape ba Diop. waaw balaa ñoo commencé dañuy naan Pape Bouba Diop fu mu tëdd yàlla na euh, gënal fi mu jugee loolu lañ koy ñaanal d'abord parce que bon ne li ñuy naan nit balaa nga koy xam mu génn àdduna nga koy soog a xam Pape Bouba Diop yaakaar naa képp koo xamante nii daal umpale nga woon Pape Bouba Diop bi mu génnee àdduna nga ko gën a xam kon donc contentement lañ am ak fierté ak euh, yëkkatiwaat suñu bopp te xam ni amoon nañ kilifa suñu dëkk waaw kontaan nañ ci trop parce que tëngeet bi yëpp daal rev euh, euh, waat nañ Pape Bouba Diop waaw ça veut dire que ni Pape Bouba Diop sera toujours resté gravé dans notre cœur waaw loolu daal laa si gis daal. macha allah tey ban souvenir nga am ci moom yow tey bu ñu nee la Pape Bouba moom. waaw Pape Bouba Diop niir bi ma am ci moom euh, bari na parce que suñu kër fii la daan fréquenté parce que boo waxee Pape Bouba Diop ak ak kër euh, ngéwal benn kër la parce que boo xoolee grand frère si kër gi lay fréquenté kon Pape Bouba Diop suñu kër gi li jamonoy bool dof ba tey Pape Bouba Diop fii la daan nekk suñu biir kër ba première match bi mu def bi mu néew gaynde match bi mu def def naa plastique yi mu jëndoon fii la ko defee kon donc ñun bari nañ am nañ lu bari lu ñuy fàttali si Bouba Diop gaa nag ay jamonoom xale woon nañ ñoon tuuti rek tuuti rek mais ñu ngi fàttaliku lu bari daal Pape Bouba Diop daal suñu fierté la honneur la et on ne regrette pas d'avoir d'avoir un Pape Bouba Diop au niveau au sein de nous waaw loolu daal regretté wuñu ko daal. macha allah dégg ngeen li nga xam ne nii moom la nit ñi wax ci li nga xam ne ki nga xam ne nii mooy di Pape Bouba Diop ah gars yi ñu ngi nii toujours ci koñu Pape Bouba Diop man la prince ji borom mbir taas ak Firidaas ñu tracé leen town bi tey xoolal tracé town bi newuñu fi di dox dañoo ñëw toog andi leen lu amul fen benn jotaay spécial koñu Pape Bouba Diop ñu waxtaanee ci li nga xam ne nii moom la waa HLM ak waa Tëngéej defal Pape Bouba Diop xoolal ñoo leen. waa gars yi ñu ngi nii toog ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Sénégal cheikh bi tur bi nan la. tur góor gi. yow nationalité sénégalais nga yor wala Mauritanie. man nationalité Sénégal. yow lan nga gisee marché Sénégal final bi nan la war a demee. ah final bi non ñun moom amuñu ci benn gis-gis bu dul dañ koy jël waaw. gëm nga loolu yow gam gëm boobu lañ am. waaw du ñaan yàlla nag mootal tali yéene yi parce que ñun ñëpp loolu lañ bëgg Sénégalais buy dox loolu lay doxaale buy yeewu loolu lay yeewaale parce que dafa jot timit dañ ko yàgg bëgg xam nga suñu bëre di fi jaar bëri na kulim juum xam nga ñoom amoon nañu yéene bi ba yàlla jëlee leen fi xam nga dañuy ñaan yàlla bu mootali yéene boobu ci booy rek incha allah incha allah ku si nekk ak li nga yéene ci kii match bi yow cheikh bi tur la. man Babacar Fall. yow euh, nationalité ban nga bu Sénégal. yow match Sénégal final bi loo gis. match Sénégal euh, final bi. alhamdulilah rabbi alamin bu ñu ba dóor ba dem final dañuy ñaan yàlla defoon nañ ko daaw da ren ñu ñàkk ko waaye ren dañoo ren dama bëgg incha allah rabbi ñu jël ko feetoo ko senegal ndax si barke loolu lañ loolu lañ bëgg te loolu daal loolu mooy suñu tiitar daal moom lañ laal moom lañ bëgg yàlla te yàlla ko yàlla def si dërëjee Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. tey ñu ne la boo waxee boo waxee Aliou Cissé wala joueur yi dinañ am dinañ ci mën a jot yow tey lan nga leen di wax. lu ma leen di wax dama leen di conseil rek ñoom ñëpp ñu déggoo ñu jël bal ballon bi ñu raamal ballon bi def ba dugal bañ am ndam rek kon ñu tiki taka daal. waaw ñu tikki taka ko. ala Barça ala Barça rek. jaajëf waay jaajëf. sama gars yi tracé temps bi la topp leen ma xoolal du jeex fii la lépp di xewee ñu dem. ay ceeb yu xonk. ah. pour ñu jël coupe bi. yow ceeb yu xonk moo ñu tax a jël coupe. waaw parce que teranga euh, teranga Sénégal. ah ak plat national bi. jën la. lañ si taamu. maanaam dimanche. ceeb yu xonk. cuur ngay dànq diwlin bi di génn ceebu jaga bu saf sàpp laa la wax am bulet lépp si biir ay géej confirmé lépp si biir ndax ñu mën a jël kub bi. gëm nga ni bu ñu toogee ceeb jour final bi dinañ jël coupe bi. na ceeb bi xonk rek na tamaata bi bari diwlin bi doy mën du ma nitu fii lu ma leen doon takkaleen téere dañuy jël coupe bi. incha allah. pronostic match bi ñaata lay doon. non yooyu du ma si wax parce que man dama contre sëriñ yi toog si télé bi naan waaw Sénégal day door affaire ngir yàlla war a suuri sëriñ yi ñoom ñëpp laay waxal ñoom ñëpp tous les marabouts ñoom ñëpp nañ tëj seen gémmin gi soxlaaw ñu leen ñu ibbi seen gémmin yi di wax niñ démarré kan bi nii ñoom ñëpp nañ noppi ñu continuer que nii jël coupe bi indil ñu ko tëngee fii si monument Bouba Diop bi ñu célébrer ko dundalu neex yow gëmoon nga ni début CAN bi ni nga gisee woon euh, équipe nationale gëmoon nga ni dina yegg si fii. mais dama koy gëm. parce que sénégalais laa sénégalais laa foo gëm ko mais am na loo xamante ni nii xam nga foo ñu defal ñu ko ñun ñun sénégalais pour ñu kontaan parce que ñun bëggatuñu toog di jooy suñu rongoñ dafa war a jeex. d'accord léegi yow classement bi Aliou Cissé tegoon bi passé lay tegaat wala yow da nga ciy am changement yoo ciy def. man man tant que Bamba Dieng mu ngi si biir terrain bi rek. taw féex parce que Baye Fall laa. yow yow kon yow Bamba Dieng ngay seetaan daal. man Bamba Dieng moo ma ñor. Bamba kase dégg ngeen gaa yi ku ci nekk ak ni ngay xalaat ku ci nekk booy wax nañ seen xalaat tamit mais duñ ci yem dañuy jël ñeneen ñi nga xam ne nii am nañ seen opinion yi nga xam ne dañ koy wax ci match bi. salaamaaleykum mbokku internetu RSTV salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñi ñuy faral di ñu seetaan fii ci seen chaîne la RSTV toujours plus proche de vous ñu ngi fii tey kër Pape Bouba Diop nekk ak belle sœuram Anne Torodo ñu ngi leen nuyu di la suñu yaay maman HLM. <laughs> <laughs> déggal maa ngi leen di delloo nuyoo di leen gërëm macha allah di rafetlu tànk yi ngeen jógee ba ñëw fii fekk ñu fi man su ma sañoon waa koñ bi bu ñu waxee rek dafay mel ni man maa wax euh, waaye sant yàlla rek macha allah rafetlu tànk yi rek macha allah. macha allah tey bu ñu lay laaj suñu première question mooy sa yëg-yëg ba nga gisee waa Tëngéej yëpp mbooloo ñëw sargal Pape ba jóg ci qualification bi Lions yi def. waaw dama kontaan dama kontaan santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne waa Tëngéej kenn amul seen fay ndax bu boo mënoon naa dem ñu fàtte ko waaye fàtte wuñ ko keroog yëg-yëg bi ma am rek mooy seen doom lañ ñëw sargal si seen doom seen rakk seen xarit boo xam ne dem na waaye mënuñu koo fàtte moom rek lañu sargal si macha allah di si kontaan bu baax a baax a baax li ñu yëg moom keroog mënuñu koo sax wax parce que bu waa dàngu ñëwee génn waa Fass ñëw génn jokkul ñëw kenn mësul gis lu mel noonu daal dañ koy rafetlu vraiment mention espécial ci waa Tëngéej vraiment. macha allah yow keroog Bamba Dieng dugal def jubilation bi Pape Bouba defoon 2002 yow ba nga ko gisee lan nga waaw dama yëg ni mbaax amul pertement booba li mu liggéey ci lu baax rek la ko yàlla fay waaye kenn du Bamba Dieng moom mi xalaat lu baax loolu ba def ko dañ koy ñaanal rek yal na ko yàlla may ndam loolu rek lañ koy ñaanal Sénégal jël ndam li ba ñu ñibbi si ñu teeru leen sargal leen macha allah ndax nag eh, dañoo sargal ku mat sargal nag surtout sàmbakat yi beeg Balla la ñu sargal macha allah doomu tëngeej bu rëy boobu nga xam ni li ñuy wax naqar la fi bàyyi waaye bàyyiwu fi gàcce macha allah. waaw nee nañ baax société la Euh, lislaam ak a jiite te ku bon génn nga ca nee nañ baax boo ko suuloon ay cinquante ans yi tamit ñëpp di def lu bon du tere lu baax li nekk lu baax ba tax na Pape Bouba Diop koo waxal rek baax lay jaar retenir ci moom beneen question bi mooy lan nga naral waa HLM bés bu senegal jëlee coupe bi ndax yaay ñun xam nañ la ñun dañ ñoo yàgg bëgg yow bu Sénégal jëlee coupe bi lan nga ñu naral. waaw dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye te ku mu may nga am ñu ngi koy ñaan coupe bi yàlla ñu ko may ci barki yonent bi te bu ñu ko mayee nag mu nekk ndam nekk lu ñu jikk waaye lañu nar a def moom no comment à suivre waa RSTV daal nga ko dencal. ñoom laa ko dencal rek ba dimanche ci ngoon. incha allah mbokk internet RSTV fii lay xewee saa su nekk gis ngeen ñëw nañ ci biir koñ bi waxtaan nag nañu ñi nga xam ne ni ñoo màggandoo ak Pape Bouba Diop ñi nga xam ne ñoo dëkkandoo woon ak moom di ay magam yu jigéen ñii di ay magam yu góor ñi nga xam ne nekkoon nañ ay xale amuñu souvenir yu ci moom waaye lu ñëw naaw fekkee nañu dara ci moom ñëw nañ tamit fii ci këram waxtaan ak belle tey balaa ñuy tëj. dañ lay laaj yaay sa dernier euh, kàddu moom benn question rek laa bëggoon ban souvenir ngay jàpp ci Pape Bouba Diop ban moo la ci gën a marqué ban anecdote nga ñuy nettali bu la gën a ci moom. Bouba daal souvenir yu baax rek lañ am ci moom macha allah macha allah. benn anecdote boo ñu mën a nettali ci moom. <laughs> waaw euh, nañ bàyyi noonu rek. <laughs> booy wax ci moom sa xol day fees macha allah. dëgg la c'est émotif mais ñëw di wax ci moom sa mot de la di ñaanal rek Lions yi vraiment ndam ndam rek la ñuy ñaan fi ne nii wax dëgg yàlla nag ndax euh, li ñuy wax rek nag dañoo namu bi donte ñun nag ay xale lañu du ñu ay mag noonu yëpp mm-hmm. waaw di dégg rek Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba tey mosuñu jël coupe ñuy ñaan daal yàlla may ñu coupe bi daal muy lu ñu jik waaw te buñ ko jëlee it ñu doxaleen ndànk rek dal rek macha allah féete ko rek ci jàmm macha allah. jërëjëf nee nañ leen noonu lay demee saa su nekk fii ci seen émission tracé temps bi c'était Pres'J borom Mbirtaas ak Firdaas àndoon ak An Djine caméraman yi d'ici là portez-vous bien et qu'Allah vous protège sur ce goodbye.